yow pur mhm. on parle de l'opposition mais déjà man sama constat mooy pur musuñu ko gis mu démarqué wu mu mu ñëw fondre ci biir opposition mais pur moom il fait mais pur bokkuñu si bon bon attends foofu loolu benn plateforme la loolu laa bëgg a intervenir électoral la woon cest à Camara dama laa bëgg laaj xanaa da ngaa demoon voyage wala non yow yaa may rafraîchir la mémoire dafa mel da ngaa génn Sénégal parce que pur depuis ñu créé ko ba tey mosoo leen gis PUR allié avec le parti au pouvoir musta am PUR a toujours été dans l'opposition et demeure dans l'opposition jusqu'à présent okay. à titre illustratif le secrétaire général national du parti Cheikh Tidiane Youm c'est le président de la coalition Yewwi Askan Wi mmh. en termes de représentativité de l'opposition mun ñoo waxtu tudd ñu Yewwi Askan bi donc le PUR est une partie intégrante de l'opposition okay. maintenant nag PUR dafa am logique bu muy demee bu ñu gisee nii nekku ci intérêt askan bi pur du ci engagé wu. ñun lu ñuy engagé wu mooy intérêt askan bi moo ñu ñor parce que il ne faut pas être tout politique aussi nous ne sommes pas des populistes dañuy xool li nga xamante mooy intérêt askan bi ñu dem ci ba mu jeex tàkk tàkk tàkk co bout lutte yi yëpp ñuy wax pur ci njëkk jiitu pur a toujours été au au chevet des populations. Mm. partout. donc ñun nous demeurons et nous restons dans l'opposition mais nekk dans l'opposition ne signifie pas fu nekk ñu dégg la fa c'est ça quoi parce que si ñëw nga yuuxu même fekkee ni c'est pas dans l'intérêt national nga bëgg se yuuxu parce que populisme moo la ñor nous ne sommes pas dans ça on est venu avec des intentions sérieuses pour changer la le vécu des Sénégalais seen bu jàll woon dinañ leen gis ci liste 41 non xam nga ñun on n'a jamais eu un problème de parrainage euh, pur loolu ñëpp xam nañ ko que ni pur mësta am problème parrainage. oui mais mënoon nañu leen recaler parce que laaj nañu leen pour ngeen dem mottali. non c'est-à-dire que même mottali boobu sax. c'était genre vice de forme là parce que nous on a pensé que la diaspora était une région entière. mais en lieu place on nous a dit que la diaspora du du raison loolu moo indi défiance bi mais bu dul loolu validé nañ ko depuis longtemps. donc c' était benn problème vice de forme rek la woon mais pur problème mu parrainage musu kaa am. d' accord maintenant li nga wax conditionnalité la mais yàlla baax na ba amut.